toppee Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké député à l'Assemblée nationale et mais également di candidat waa Wallu Sénégal foofu la ca euh, Mbacké ci élection législative yu jëm alors Issa est-ce que mën nga ñu leeral dëgg-dëgg lan moo tax yoon teg loxo ki nga xam ne mooy Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké waaw euh, loolu Moustapha ñi seetaan euh, li nga xam ne moo di rassemblement bërki démb ci àllarba ji bu waa yeewe askan wi ak Wallu mhm. seen intercoalition boobu la nga xam ne moom lañ teg dégg nañu kàddu yi ne ko fa daa di wax ci njiitu réew Macky Sall am nu mu ci waxee xëy na sax mënuñ cee jaaraat. Mhm. Euh, ba mu ko defee nag ba noppi ni ki démb vers ay dix demi en tout cas ci la woote ndax ñëpp xam nañ ne aussi ñii nga xam ne dañuy faral di suivre ci sunu ay différentes plateformes. bu Walfadjri gis mhm. nañ que ni. moom lañ waroon a invité même ci émission bi ñuy wax édition du soir ci télé bi. Mhm. mais ay dix huit heures yooyu ci la woote ne euh, waa cybersécurité. moom ci boppam moo woote. moom ci boppam moo woote. Mhm. ne ma waa cybersécurité ñoom ñoo ñëw jébbal ko li nga xam ne moo di app convocation ngir mu ñëw wuy si leen. Mhm. donc nag il faut que mu ànd ak ñoom dem. Mm-hmm. ginnaaw bu mu demee nag ci la euh, ko fa daal yóbbu li nga xam ne moo di garde à vue maanaam yóbbu ko denc ko. Mm-hmm. ngir mën xoolaat mbir càmbar ko biñ ko biñ waxee loolu nag ni ki tey jii itam mu doon jàkkaarloog le doyen des juges. Mm-hmm. ginnaaw bu mu jàkkaarloog moom ba noppi ñu daal teg ci de ko xamul mooy en tout ko denc ko ci kaso gi. loolu la lay euh, tekki. en attendant ñu lañ bët ay mbiram. voilà liñ koy toppee nag mooy offense au chef de l' état maanaam yëkkati na kàddu yu ñagas teg ko ci kaw Mm-hmm. ñu bari article quatre-vingt la ñuy wax mais yaakaar naa article deux quatre moom mooy wax ci mbir moomule mm-hmm. euh, beneen chef d'inculpation bi nga xam ne bokk na ci li tax ñu euh, teg ko loxo muy diffusion de fausses nouvelles maanaam kàddu yoo xam ne da koo yëkkati te wérul mm-hmm. beneen bi ci toppaat nag di ñetteel bi muy diffamation loolu la la toppee euh, député bi la di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mais nag dañ ko yóbbu lu ñuy wax instruction instruction mooy dañ a bu dee eh, xëy na am na dossier bi fu mu war a jaare ji dañu war a jaar fi nga xam ne moo di assemblée nationale ngir lever mbalaanu kiiraayam beneen bi topp mooy bu fekkente ne nag flagrant délit la yarul mhm. ñuy dem di lever ji mbalaanu kiiraayam mais mën nañ ko jàpp directement mais li nga xam ne moom lañu dégg tey rek avocat mu di maître Thiaw yëkkati ci ay kàddu moo di ne mhm. ñoom loolu mënuñu ko nangu parce que doonatul justice mais jaay doole la ndax moom dañu wax ne flagrant délit lañ ko jàppee ba pare mhm. ko dem yóbbu ji ko instruction loolu nag mu nekk loo xam ne lu lu lu jaaxal avocat yu koy layil la xëy na mm-hmm. dinañ ci ñëw ci kanam mais lu ci mën doon moo di ne teg nañ ko yoxo moom en tant que euh, ku nga xam ne itam moo nekk candidat wu euh, waa coalition Yewwi Askan week ak Wallu euh, et seen mm-hmm. ndax moom ci bannière boobu la ci la demee ca Touba Mbacké d'accord ma ngoog naturellement Ba yu mel ni soo ko déggee la la première question bi ngay bi ngay posé mooy est que ci république est-ce que fu ñu wax ne liberté d'expression dafa am c'est une raison pour se permettre de tels propos est-ce que kàddu yu ni mel war nañ ko yëkkati ci pénc mi jëmale ko ci ki nga xam ne quand mooy njiitu réew mi. waaw euh, sëñ Moustapha xam nga euh, yeewi askan wi. Mhm. je pense que politique autrement la woote. Euh, ku woote politique autrement dañoo jëloon programme boo xamante ni les questions yi ñuy traité. Mhm. mooy ay questions sur l'économie ay questions sur le sociale sur la santé sunu protection ressources yi ak yooyu. Mhm. euh, très sincèrement euh, situation bu xaw a inconfortable la. Mm par rapport ak euh, Serigne Bara Dolly. nga xam ni euh, li mu wax répété waat ko tamit. Mhm. même si c'est allusive ay allusion kese la. bu man bëgguma cee jaaraat du loo xamante ni quelque que soit alpha. Mhm. Euh, muy président de la république ak. muy ki nga xamante ni moom mooy bale mbedd yeeg mooy keneen moo ci am dafa am des sujets yoo xamante ni kenn da ko dul wax ci pénc rek mu jeex. Mm-hmm. ndaxte loolu buñ ko bàyyee mu dem politique dafay jël ay voix yoo xamante ni euh, du doon lu neex nit ñi parce que dañoo jàpp ni ñii politique. Mm-hmm. ñoom ñoo jël décision jël responsabilité bu gën a metti ci responsabilité yi mooy nit ñi. Mm-hmm. ngeen décider ci seen vie ci seen destin. ku yàlla teg loolu. sa sa loos. Mhm. dafa am foo war a waxe noo war a waxee ak foo ko war a waxee. moo tax dañ koy apporter suñu soutien. Mhm. sans faille ci moment yi muy dund. tout en regrettant fortement propos yooyu mu jëmale ko ci président comme mu jëmale woon ko ci keneen bi ñu waxee loolu ba pare. Mhm. daan ni il faut aussi ñu repense le délit d'offense au chef de l'État. parce que dafa xaw a yomb trop aussi ñu protéger le président de la république. Mmh. ay ministres am mais ministres yi tey bu ñu saaga woon nit li baar dolli wax. kenn mhm. mënu leen a topp. kenn du leen topp. dégg nañ ku bokk ci nguuru président Macky Sall. Mhm. di Ahmed Suzanne Camara. li Serigne Bara dolli wax. sëñ Abdou sëñ Abdou Baara Doli sëñ Abdou ndax ñu bari dañ koy jaawale aussi pour ma leeral ko sëñ Baara Doli Baara Doli mooy papaam voilà moo nekkoon ci euh, temps wu Abdoulaye Wade nekkoon na nekkoon na député bu PDS loolu même journaliste yi donc li li li Ahmed Suzanne Camara wax mhm. nekkoon ki yoroon réseau des enseignants bu APR daal ni carrément nañu rey Ousmane Sonko nëbbatuwul nee na sama sama biir néeg laa tëdd ñëpp ak may gis làqatuwuma mhm. nañu rey Ousmane Sonko nañ ko bàyyi moom bu ñu ko bàyyee mu rey ko. que dafa jàpp ne tant que mi ngi fi jàmm du am. un appel au meurtre koo xam ne moo yoroon réseau des enseignants APR. Mhm. déggoo communiqué gouvernement bu ne ñu ngi dénoncer appel au meurtre boobu procureur dégg na ko soxlawul woon plainte parce que loolu c'est un délit très grave très grave déggoo seen gouvernement ñu dénoncer li metti nit ñi ba tax la lu kilifa gi mënoon a wax. Euh, président de la république. Mhm. mooy dañuy gis à côté nit ku def lu gën a graaw. déglu mhm. nañ sànq jatara. Mhm. je pense que ministre la. li mu wax Ousmane Sonko c'est inqualifiable. naan nañ ko xarafalaat dama te xarafal bi moo gën a rafet ministre la nee na buñ ko xarafalaatee buñ fa bàyyi dara je pense que politique ñu ngi commencé euh, ministre la te tey jii këram lay fanaan dara du ko ci fekk. Ahmed Suzanne Camara bi ne nañu rey Ousmane Sonko këram la ne dara du ko ci fekk ñun mënuñu xool ñoom seeni mbon mbon ak ñaawteef pour jéem a justifier lale li ñu ci wax leer na. dadul ay kàddu yoo xam ne war na génn mais mhm. en tout cas. li ñuy wax procureur tey te dañoo bëgg mu leer ñu waxu ko solennellement. Mhm. waru la xaar président Ousmane Sonko di porter plainte contre Ahmed Suzanne Camara bu dee ak jatara lii mu mujjee génne tey. Mhm. te xam nga un ministre bu mel ni jatara mhm. nga xam ni doo ministre délégué doo ministre dara nga toog ci tele ay mboota ay nit wër la nga nekk ministre sa xel demul ci naan nañ leen ko xarafalaat te dama maa wax xarafal sax li gën a rafet mhm. te bu ñu koy dagg nañ dagg lépp dalay wan ni ñi wër Macky Sall lu tax mu échoué mooy nit ñi mu tànn ci boppam mooy ay ministre am ñoo xam ne dañuy toog conseil des ministres chaque chaque chaque bi di décider ku ku ku deele sax nan lañ lay suule fan lañ lay takke nan la nit ku mel ni jatara war a toog semaine prochaine ci kanamu Macky Sall jàkkaarloog moom naan ko maa ngi lijjanti le numérique au Sénégal et en Afrique loolu ñoom